xewle. ñëw ngeen fa ba yow barki démb alaaji yaa fa yaa ah, Mambay mi ak Yaas mi ci suñu congrès ba. te démb ja dañoo ñëw ñëwaat ca congrès ba. Ah. waaw waaye loolu yëpp nag. kilifa gi ñu fi dajale la rek. wallaahi moom bugaan gee dani la rek nag. Hmm. coow li coow nag moom la nag. Ah, waaw lay waaw moom la moom la moom daal moom daal sant naa ko. moom la waaw sant naa ko ak waaw waaw. eh yaa ko. waaw. eh président. waa président. <laughs> oui oui euh, Dóor. waaw président yow dégg ni ma wooyee. yow dégg ni ma wooyee. Ah, ah. <laughs> mais président maa ngi lay nuyu. waaw waaw sant bu maa ngi lay sant bu baax Dóor Dóor na nga def. <laughs> Sénégal Dóor Dóor. Eh, même téléphone loolu la ci bind ah. non xam nga man eh? ma walaay Dóor moom. man de man mais am naa deuxième Dóor léegi nag. man de parce que léegi comme am na leer bu falu. après bu ma dóoree ci yow damay daanu ji fële. man daal ay xam nga ñaari affaire la kii dóor la. Uh-huh. kii <laughs> man daal man daal li may njëkk a wax man li may njëkk a wax. Uh-huh. waaw uh, uh, waaw président li may njëkk a wax balaa maa nuyu. Uh-huh. en tout cas tey moom boo yënguwul moom du baax moom. xam nga xam nga li naan la case de Birama brûle. <laughs> non non non sawaay instant bi kër yi amoon yëpp campagne nañ duñu ko nangu. waaye ma ni. Eh, DG. DG boobu moom man maa man maa lay lànkal. directeur. ah mais xam nga xam xam nga lu ma jaaxal. waaw. mais euh, ci revue de presse bi. waaw. mais tey. tey troisième dañ koy tere rek nga waaw non eh, ah, ah, ah. wuy ma. xam nga xam nga eh. dem si yàlla dubalees li mu doon def laa bañ a def quoi. Mhm. waaw dégg naa bu la dégg ba pare. dañ naan ko waa ah, mais lees lees wàcceel kii mu ne non non ay olof lañ il faut ma xaar photo. wala <laughs> leen bañ photo léegi nag léegi nag man nag photo ba nag laa fa bañ a xaar photo ba laa fa bañ a xaar bàyyil noonu rek man daal fi mu ne. waaw waaw comme comme comme li ñu waxante rek bi nga amee victoire. waaw. Euh, la vie elle est faite de combat. wallaahi. mais yàlla mooy maye. alhamdulilah waaye nit ku nekk sañ nga sabablu ne lii war naa koo am suñu boroom li nga xam ne mooy joxe jox na la yàlla na nga ko muurloo euh, comme li ma la waxoon keroog rek euh, yàlla jox la kàttan teg la ci njub ba li nga bëgg yéene ko mhm. nga mën ko sottal pour les populations de Guédiawaye mhm. mais boo fàttali ko la la wax ak li ma la bind mhm. dama ne la du ci yam viser maire am nga ko viser député di nga ko am viser leneen ak leneen nit yow yaay yemale sa bopp mais yàlla du tënk kenn et loolu euh, moo am solo mm-hmm. te la ma la waxoon it gis naa ne yaa ngi ci mm-hmm. mooy fexe képp koo xëccoowool mm-hmm. nga tàllal ko loxo liggéey ak moom parce que lenn dong moo la war a intéressé mooy victoire la ville de Guédiawaye et eh, bi nga waxee ne dangay ñëw liggéey mhm. j'ai dit voilà un produit de Bougane mhm. parce que comprendre na ne mhm. euh, akub pal warta doon une fin en soi et li nga wax dafa am solo ñi ngay xëccool dañu leen fal ñoom mais yow danga am liggéey liggéey boobu nga nekk nga jàpp ko ak sa fukki loxo gëm ko di ko déroulé yal na yàlla def nga am sa yëfi bopp parce que fii nga nekk sax man jàpp naa ne sa yëfi bopp nga ko jàppe parce que nii ko boroom téye noonu ko téye kon yàlla na suñu borom def yéene yëpp sotti amiin yaa rabbal aalamiin e yéen wii yàlla moo mën a woyafal mu woyafalal la ko bu baax euh, je suis très à l'aise d'en parler parce que je sais que fal euh, bi nga xam ne def nañ la ko maire bu Guédiawaye maire par force muy gëm-gëm. yàlla sottal ko. Mm, dafa am lu am solo lu ci am. Mm-hmm. parce que dinga nga yegg ci banaliser. Mm-hmm. pas dans le sens péjoratif. Mm-hmm. mais wan ñi ñuy fal ne leen. dañu leen yónni sant leen ngeen war a def. donc donc gënu leen nit ñi. ëpp leen dayu nit ñi. c'est important ëpp leen martaba nit ñi. ëpp leen jàng nit ñi. dañu leen sant Sénégal population ñoo leen sant. ngeen war a def. bu ngeen defee baax na. bu ngeen deful am nañu sañ-sañu. kenn ku nekk ci ñun fekk leen fa ngeen toog jëli leen fi toog seen place def liggéey bi ñu leen waroon sant. kon euh, esprit. gëm sa bopp boobu nekk ci yow mhm. nañu ko yaatal ba kenn ku nekk mhm. am gëm-gëm googu mhm. mécanicien bi marchand ambulant bi magistrat bi menuisier bi enseignant bi ku ne xam ne danga nga war a participer ci luy defar Sénégal et je crois que loolu yaa ngi ci mhm. yàlla na la yàlla euh, jàppale yàlla kattanal la ba yéen yi nga am sotti parce que sa victoire victoire hmm. hmm. Ahmed Aidara victoire u D-Média la victoire Ahmed Aidara victoire Bougane Gueye la hmm. ay nit mën nañu bokk ndey ak baay duñu bokk euh, benn ëtt wala benn yoon bu ñu jaar mais li am solo mooy li ñu bëgg maak yow yëpp. Mhm. benn bëgg-bëgg bi la. mooy Sénégal mooy lu defar Sénégal. rek kese lu jëme Sénégal ci kanam. kese lu teggi jafe-jafey askan wi. kese te loolu képp ku ci participer man nga ko defal. Mhm. yow la ko defal. Mhm. sénégalais yi la ko defal. voilà. ah fas fas bu ñu xëyee jox ko ngooñ. ngoon eh. ngoon ñu jox ko repas. dañu ñaari xont yu bokkul la waaye kiy joxe ku ne da ngaa bëgg mu suur rek. Mm-hmm. absolument. Mm-hmm. kese lañ ci jublu. Mm-hmm. waaw mais président absolument. waaw mais président waaw mais vraiment. ah ah monsieur le maire. waaw dañ lay mere de. waaw mais mais mais président. Eh? waaw waaw tey tey moom tey moom comme bi may bi may xëy si rek. Eh? bi la li ma suñu waa kër doon wax rek daan na waa kon di nga xëy tey moom bis bu rëy la mais. sa kàddu yi nag gën na gën na réyal nag bis bi. Oh. waaw parce que nag da ma fekk nag fu nekk nag. Mm-hmm. waaw mm-hmm. vraiment. si may wax Cheikh Sarr. Mm-hmm. waaw munu ma def nag dara nag lu dul ñaanal la rek. yàlla dëgëral sa taxawaay. amiin yàlla balaa amiin. xam nga même wàllum gis-gisu politique sax ndeysaan. damay damay campagne quoi. président damay dox ba ci yàgg rek nga gis ku ne ma. xoolal da ngay nekk maire waaw Bougane Gueye Dany day nekk président. man yéen rek laay seetaan nuyul ñu bugga yéeg lii ma gëstu xool gaa yi ci ginnaaw ne leen gis nga ko j'en ah. profite j'en profite Ahmed pour ah. pour remercier ah. tous les mm-hmm. Mm-hmm. amul xaaj surtout nag ñi nga xam ne Sénégal ñoo nekk ci opposition bi mm-hmm. et par la même occasion féliciter le travail exceptionnel de la coalition Yewwi Askan Wi. profiter également pour remercier waa Gëm sa bopp yépp. tous les candidats de la coalition Gëm sa bopp ñi gagné ak ñi gagnéwul. oui parce que benn vainqueur rek. comme ni nga ko waxee Ahmed moo am mooy le peuple sénégalais. c'est un peuple souverain. Mhm. C'est un peuple intelligent. Mmh. C'est un peuple en avance sur les personnalités politiques. Mhm. te dëkk boo ko amee. ña nga xam ne ñoom ñoo nekk ci dëkk ba. Mhm. gën a yeewu ñi jiite dëkk ba. Mm. dëkk boobu loo cay def da ngay def attention. Mhm. kon maa ngi remercier waa gëm sa bopp yëpp. sympathisant parce que gëm sa bopp amul militant sympathisant wu gëm sa bopp. les têtes de liste yu gëm sa bopp ñoom ñëpp ku ci ne def na ci dooleem def na ci alalam def na ci euh, xam-xamam parce que tey boo gisee ñoom ñu am presque deux cent vingt mille voix partout au Sénégal mhm. je crois que loolu liggéey la boo xam ne mhm. kenn ku nekk def ci yéen ñuy sax ku ci ne def na ci wàllam mhm. muy yow tës muy dóor ku ci ne lu mu ci war a def def na ko ci muy euh, jàppale ci kaw jàppale ci suuf yàlla euh, na yàlla mhm. dooleel réew mi yàlla na yàlla sàmm Sénégal Ahmed amin amin waay président merci beaucoup yàlla na la yàlla mais président waaw mais léegi ma kii oto amet bi daa paan fii <laughs> ah, man nag ci suba sax oto oto oto oto moom mënta paan. Ah, léegi nag léegi nag yow nag. jëlugul fonction di léegi nag message yëpp dañ ne nag ah? yow toll nii nag bugaan nag day jàpp ci combat bi. jëlugul fonction de jëlugul yow fi mu toll nii maire bi. man man man man combat bi combat bi musuma cee jóg di. waaw léegi nag continuer nag léegi nag na oto bi tàkk. en daal. en tout cas daal Cheikh. oto bi tàkk dama jaar sama loxo war ngeen a président de. DG DG. yow mosoo daw. waaw vraiment daal oto daal président. ñun daal eh? ñun daal ñu ngi lay gërëm di la sant rek. Mm-hmm. waaw jërëjëf waaw parce que lii lii rek rek rek rek rek. dafa mm-hmm. mm-hmm. neex waaw lii rek dafa neex. bu doon affaire mbir mi dëgguwul ci ñun. waaw fii ak lu waay mën a wax it yaay njiit la yaay kilifa gi. wallaahi waaw waaw. képp koo xam ne dem na ba mu leer na ne kii moom. non man man kay man kay léegi man léegi duma kilifa gi parce que man léegi man man bàyyi naa leen ak mbir yi. man man du ngeen ma gis. du ma ñëw ci yéen. xaw ma xaw la ngeen di wax. xaw ma na ngeen koy waxe xaw ma ni ngeen koy toggee maag sénégalais yi ñooy yem. waaw lool moom dëgg la moom ci côté information moom yaa Sénégal yëpp yem. ñun moom on est waaye nag waaye nag. loolu génnewul la ci nag. déedéet déedéet ndax man. Mm. ndax man man man man mënumaa doon Sénégalais yi. non c'est que loolu sax. yow man c'est que man xam nga xam nga xam nga man li ma bëgg a wax man ñi may dompat ak ñi may dompat ak di ma kaata yëpp yéen a tax. alaaji ma ni. waaw ma waaw man xam nga ma. ma wax yéen ñi. waaw yaa ngi Cheikh Sarr yéen a ma war a waxal yéen ñi. non wax dëgg. yow wax ma mission rek. ci suuf. alaaj dama <laughs> benn message bu ma benn message bu ma benn waaye envoyé léegi. waaw nee na président waaw kilifa gu ñëw taxaw ci kawam ni ko. waaw. Ahmed Aïdara mi nga bàyyi ci rajo bi muy propagande ak campagne. rek mhm. waxal mhm. mhm. président Bougane <laughs> tontu ko ko. xar fañ ko tëkk fa waaw waaw allah akbar loolu la ko tontee noonu. Ah? wax loolu de. fañ ko tëkk. ah ah yaa ngi déglu. dégguma ñun daal fii non Cheikh nee na. ñun daal fii la ñuy hmm. am ko loo Moussa wax ni la waaye yow Ahmed da koy bàyyi sa rajo bi noonu muy wax di propagande defal boppam nangam nga ni ko am xar mu ne foo ñu ko tënk fa lay lekkee. waaw wallaahi laa jëm. wallaahi xal fu ñu ko tënk falay lay lekkee. waaw kuy kuy. ah kuy fu mu ko tënk fu mu ko tënk fa te muy dëgg. xam nga xam nga mooy li xam nga yenn saa ma wax la ku ku ne xam naa say dóor. man moom man moom samay samay samay dóor moom nag. samay dóor moom da nga hmm? koo yàq. man moom samay dóor da nga koo yàq parce que man sa bureau laa doon dóoree. non ñun duñu dóor maa yow waaw ah, léegi léegi léegi daal léegi daal kii président. man daal damay man daal damay ragal daal. suñu gars yi jàkkaarloo woon fële yi naan meer baa nga ca rajo ba gars naan président ba. na ko may essence léegi Mansour na la jël ci suuf rek waaw waaw waaw waaw. non non amul amul amul problème yow yow yow yow yow toi tu es mon jeune frère. waaw waaw loolu yàlla def na ko waaye même même même boo nekkoon même boo nekkoon président it. wallaahi. sañ naa ñëw fekk la nga taxaw ma ne la lii laa bëgg ci yow et biir na ma ne bu ma la waxee nga def. wallaahi dëgg la. waaw loolu day moom. yàlla na suñu borom euh, dàqal ñu seytaane. amiin amiin yaa rabbal aalamiin. te sàmm la. te fal gi ñu la fal. Mm-hmm. amiin yàlla na la suñu borom réserver yeneen i succès. amiin yaa mën na ko. te dañu koy ñaan mu def ko. boo ko mu mu may la yàlla ko suñu borom defal. amiin amiin yaa rabbal aalamiin. tout à l'heure. ok DG à tout à l'heure. jaaga moom bu ma ko gisee. Sénégal 7 point com. adiyee 10 000 francs. <laughs> suñu yaay Kiné a waaw waaw Kiné Diouf jaaga Diouf. ndeysaan ndeysaan dafa am dafa am benn ñaan bu mu ñaanoon bu ma ko gisee. il faut que ma il faut que ma weexal. ndeysaan ndeysaan ñaari junni. parce que